want. Yene Sen Sen, Rumi Venkat TV jajeufal nañu len bu baax ci ànd bi ak uh, top bi nga xamantene rek nañ ñu koy ci site internet bi di réew 24 tv li ko na fess ci bop xabar yi nak dañu wutali banque africaine de développement uh, ki nga xamantene rek mom mo fa nekkon nak di amadou hot dal dina démissionné ci poste bi nga xamantene rek mom lañu ko denkon mu nekk envoyé spécial ambassadeur mondial pour l'alliance pour l'infrastructure verte en afrique di agia mom ancien ministre de l'économie nak ak bu plan de coopération jamono ji nak ne dal candidat la Eh, ci boobule banque ñu dippee nag banque africaine de développement bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ne rek eh, suñu nattango yi la soleil daal dinañ koy eh, fësal ba tey rek ci wàllum xibaar nag dañ koy doon rek chiffres yi nga xamante ne rek daal nañu koy fësal nag ngir regroupement ak organisation match yi nga xamante ne rek gaynde yi fas yéene nañ ko am foofu ci stade Abdoulaye Wade bu jam ñaajo nag ginnaaw bu mu ñu juree bu ñu dikkee 35 millions de francs fa mu nekk 70 millions yoo xamante ne rek dafa ñeel foofa ca hôtel Radisson ak lu ëpp 13 million ngir euh, kaaraange gi ba tey rek ci wàllum xibaax bu ñu jugee ko foofu dañuy addu rek wax ci Ada Fass mi nga xamante ne daal dinañu koy teg loxo la koy daal di toppee rek euh, mooy dóor nit ba gaañ ko rek ci tayefam ci ab xeex boo xamante ne rek doon na ko xeex foofa ca benn baar bu nekk ca diwaan bu Medina moom mbër mi de Ada Fass nag jamono ji daal dinañu koy jébbal rek procureur de la république ak xaritam bi di Pokola Balde euh, bokk ci écurie Falaye Balde mi nga xamante ne rek jamono ji ñu ngi koy daal di seet ba tey nak ci walum xibaar nak dañ dal di wax rek ci sûreté bi nga xamantene rek état bu sénégal daal dina koy am nak ci ñi nga xamantene rek ñom ñoo doon lubal ak njuuj njaaj jëmale ko rek ci alalu askan wi lu tollu ci 300 ministre ak ay dg ak ñi nek ci daas nak daal nañ leen téré rek ñu genn bit réew mi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamantene ne daal nañu koy jox comme nak la daloon ki di isen après dadis camara yaaya jàmme bu ñu muytulé rek bukk bu leen mat nak mën na matt kii di Macky Sall ndax nak bu ñu muytulee dinañu ko top ndax crime contre l'humanité tey rek ci walum xibaar bi ñu joggé fofu dañuy addu rek wax ci législatif yi nga xamantene rek ñu ngi koy anticiper euh, pastef ci jëmi bopam rek na mëna amal ap réunion ni ki samedi bu ko défé rek mu daal di supprimer euh, groupe whatsapp yi nga xamantene rek dipé won nañ leen jommay euh, président ba tey ci walum xibaar bu ñu joggé fofu dañ koy daal di jeexalee ci may mun bu som nga xamantene rek daal di nay tontu cheikh yirim sek nak lam ko daal di wax nee ko nak normalement bin bin mom bu ko rek fay tassaro def rasak ndax nag rajaxe rek lay def waye nak ñi nga xamantene rek jamono ji ñom ñoo warul wax rek ñom ñoo nekk di wax waaye nak heureusement ba sénégalais ci seen jëmmi bopp daal di xamee nak ki ki nga xamantene moom wax fan la ko ak lim fi def lépp di kat bi kii di may mun a buso mu nekk tontu bu saf sap bi nga xamantene rek daal dina koy tontu kii di cheikh sek ginnaaw bu mu yëkkati woon ay kaddu nak ne ndaw ñi yaakaar bu tas dëgg rek lañu am nak ci ilmanu jëwrin bu njëkk bi di ousmane sonko ak ñamu andalon moo waral rek ñu daal di wutali mbëkk mi tontu yi nga xamantene rek moom la may mun a buso daal di tontu cheikh sek jërë ngeen jëf ci ànd bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen